ci ndigalu président de la république ministre de l'eau et de l'assainissement daf ñoo wax né ñu def benn mission entre ñun ak wa ONAS pour que ñu ñëw sétlu préparatif ñuy def ci xew-xew bu mag bi di ñëw ni bi ñuy rappeler Gamou international bi nga xamantene moy anniversaire u naissance su Baye Niass lolu nak suñ koy def chaque année dafa am yo xamantene dañ koy préparer donc amna yo xamantene traditionnellement mom la ñuy def forage dañ leen di raxas camion citerne yi dañ leen di yokk daaw am na lu ñu defoon mais yokkaat nañ ko la sa tootu am na équipe boo xamante ne lépp luy euh, rëq-rëq taxaw nañ pour defar ko mais nag set ren dafa am ay innovation yu majeure yoo xam ne dañ ko apporter première innovation bi nga xamante ne apporter nañ ko mooy ñett kilomètres yoo xamante ne ay tuyaux dugal nañ ko ci kër yi loolu nag mu ngi laal presque quinze mille personnes point bobu mag moma ci gëna neex parce que président loolu lañu ñu sant fexe leen ba ndox fep kër bu fumu nek bir Sénégal robinet mun fa mun fa dugg te loolu c'est l'occasion ñuy remercier maire bi def na ci liggéey bo xamantene ne liggéey bu ci ay benen euh, benen innovation biñ fi apporter moy ni ngeen di suma ginaaw benn château d'eau 200 mètres cubes la bo xamantene ci budget effort lañ ko défar donc pour renforcer pression ndox bi pour que ndox bi mëna dem ci ay kilomètres yu béré béré béré la ci top aussi amna ben forage bu nek bu tuddu bu tuddu Kër amat donc branché nañ ko ci réseau bi innovation aussi camion citerne amna forage yaa ngi dox mais toujours dañuy fagandiku ci bi ñuy fagandiku fofu ñu andi ay bâche bâche ndox yo xam dañ leen di tek fi nit ñi di dé ku ci bëgg ndox nga mën ko nga mën nga mëna am nga mëna am ndox mais nak daaw dañoo amoon problème bu ndaw loolu mooy évaluation li doxuloon daaw moo ne pompe bi bi mu paanee pour ñu defaraat ko affaire dafa dem ba trois heures du matin ren comité d'organisation bi sas nu de ngeen di andi camion boo xam ne day taxaw problème su amee rek ñu mun a remplacer ñu ñaan yàlla yàlla bu bu bu bu bu bu problème am gis nga liggéey boobu nag suñ koy def yëpp dañuy remercier personnel OFOR mais di remercier gouverneur de la région bi nga de ne le de la région de Kaolack di remercier le préfet de de de Nioro le sous-préfet de Paoskoto di remercier le maire maire bi maire maire Ofor là, parce que administrateur la ci biir Ofor di dalal xelu ñi ñëw incha allah ndox dina am bu baax pression bi dina baax ku nek mëna def gamu bu mucc ayib. ci biir tayba ñaari forage mo fi dox biñu wax F1. ak F2 te yépp a ngi dox te position nañ fofu yépp personnel bo xamante problème su amé rek ñu mën ko régler pour ko ndox bi mëna permanente ci ci ci ci gamu gi. wax suñu contente ci mbir ci mbir mi parce que aussi euh, bu ñuy wajir gamu muy événement bu yem ni juddug malana Cheikh al Islam euh, nga xamné ne international ay millions ngi nit di fi euh dañuy am toujours ay bëgg-bëgg waye ren. ñuy sant yàlla d'abord l'autorité régionale départementale yëpp teel nañu jël ay dispositions organiser rencontre ñu wax leen li ñu bëgg euh, ci par rapport nag bëgg yi bëgg-bëgg yi moom def na fi sax démb en tout cas réunion d'évaluation suivi pour xool donc euh, euh, mais liñ ci jàppee véritablement par rapport ak liñ xam ne moom lañ nisaroon bëgg ko ci gàmm gi ci wàllu fàll ci fàll fànn yëpp. Euh, pratiquement euh, on est on est on satisfait rawatina nag ñii nga xam ne tey jii déplacé nañ ñëw fi tey pour xool ñoom itam loolu marque d'attention boobu d'abord rek moo ñu njëkk solage soulagé le fait que ni ñu def xitte ne ah ñii ñu ngi ña ngi fay liggéey waaye ñun kilifa yi nañ ñëw xool ndax lañ fay def mi ngi ci tegu ci yoon wala tegu ci yoon loolu d'abord moo ñu njëkk a marqué beneen li ñuy marqué nag mooy aussi jëf bi sur le terrain maanaam li fi li liñ liñ def réellement liñ def réellement mooy boo jëlee ndox mi véritablement euh, ren euh, wax deug yalla am effort def na fi liguey bu mucc ci walu lam daan def parce que lam daan def mom def defat nako fexé ba entretenir donc forage yi waye aussi ren fexé ba yok donc réseau bi mais aussi fexé ba pression bi euh, mucc ay pression bi li koy muccal ayib mooy suñ deuxième forage bi château bi wa nga xamné véritablement ay millions millions lañ ci def pour que mëna mëna yok mais euh, walu ci walu aussi euh ki citerne ndox yi donc da nañ fi indi ben ñaar citerne waye ren liñ fi indi ci citerne bëgguma sax tuddu ko waye en tout cas xamna né duma am jafe-jafe ren ci walu boobu l'essentiel moy donc sant ko gërem gërem ko kon en tout cas ci turu population yépp quoi dañ dañ leen di gërem gërem donc le directeur général de l'OFOR mon ami frère Amane Ndiaye lañ gërëm ñi nga xamni ne ñoo leen fi yébal donc euh, di ministre bi ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam waaye kooku bu ko tuddé donc ci instruction ak vision président de la république son excellence Macky Sall ci lay dox kon dañuy gërëm en dernier ressort le président de la république diko ko yalla yalla gën ko dëgër gën ko saxal